billahi min ashaytaani rajim bana mu daanoo ni ma ko waxoon rek suñ bi da koy tàmbalee lu bare bari te mu firi ko yoon yu bare bari bismillahi rahmaani rahim gannaaw bismillahi rahmaani rahim suñ bi dañu suñ boroom maa ngi lay ñaan nga dolli teraanga ak jàmm ak barke sunu sang sunu kilifa te réyal te màggal teraanga jaag jàmm jaag barke ba ba defale ma ca sama dénkaani bii muy dénkaani bi leeral xoli mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci man ñoo jàpp ci man te sax ci dénkaani bii rek ma leen dénk na nga ci jaare daal leen di àggale ci sa bopp yow mi xam lépp sa kumpa denc lépp te nga mën lépp daa jëkk ni yéen taalibe yi jàpp leen dénkaane bii nga xam ne maa leen ko dénk muy dénkaane bu am njariñ lool te du leen fegal lépp luy ak ñàkk texe ak lépp luy ak waru day def nag baydu mu wax daal di koy saraa maanaam andi wesar leeral lam jublu ci baydu wa mu ne mu ne li jublu ci baydu jëkk yi mooy dénkaane bi ma leen dénk daal dénkaan la bi yooyu di jëriñ képp koo xam ne dana koy jàng ka nemmiku dénkaan la it boo xam ne fu mu toll di fekk ak ñàkk a texe ak woru ba yooyu yaar du ñu mën a dëgmal kay nemmiku dénkaane bii di ko jàng ka yëre ka jéem a jëfe ndax dénkaane bi daa bokk ci xeeti xam-xam yi yàlla yi ak xeeti mayam yi nga xam ne moo leen di jagleel jaam ba ko soob alxulumu ar rabbaniya ak almawaahibu ar rahmaniya ci la dénkaane bi bokk moo tax mu demee noonu mu ne dénk naa leen fu ñu toll di moytu lekk lu araam ndax lekk lu araam day dox seen digganteeg jub ku bëgg a jub daal nay sori lekk lu araam bi mu ne moytu leen lekk lu araam mu ne lu araam mooy loo xam rek na nga ko amee dafa aay nde lu ñu la sarax mbaa loo jënd mbaa lu ñu la may mbaa lu ñu la jox addiya ak anam yu ñu xam te mu dagan loolaay la dagan lu la dikkee ci genn wet nag gu bokkut ak googu mooy lu araam mel ni lu la dikkee ci càcc mbaa daan alal jaambur ci doole mbaa di laaj te fekkut nga loru ndax lislaam day aaye laaj nit ñi seen alal te fekkul nga loru bala ngaa sañ a laaj da ngay loru ci loo lekk mbaa loo sol mbaa foo fatu te amoo menn pexe mu muy laaj mais nag boo gisee ma di leen tere lekk lu araam mooy rek lay jëriñ ëllëg ca àllaaxira ku lekk lu araam du ko mën a am ku lekk sax lu lënt du ko mën a am ndax ku lekk lu araam faawu mu def lu araam ku lekk lu lënt faawu mu def lu lënt mu ne àgg na ci ku lekk lu araam bu bëggoon a topp yàlla itam du ko man ne kon nag yàlla nu yàlla doolee may tawfiq doole noo dëppaleeg la munu tànnal nga xoolaat nag ba muy tudd ya leew ya dagan te caa boole lañu la jox te laajoo ko waaye nag dañuy sart ñu jekki-jekki jox la ko rek wane ci sa bëgg ba ñu jéppi la door la koo jox tayit bu mu la wóor ne ki lay jox kat da am lu mu foog ci yow ba tax mu la koy jox te loolu mu foog ci yow nag nekkul ci yow mel ne mu defe ne loolu nga ba mën a lekk asaka tax mu jox la asaka te xam nga ne yow suñu laa lekk asaka daa mu lay jox addiya am ku mu la foogee ne da ngaa bokk ci njabootam fekk na yow nag bokkoo ci jabootu kookee loolee kon doo ko sañ a nangu baa boo ko nangoo da nga koy leeral ba mu xam ko bu la nee nag téyeel bàyyi naa la ko nga door a téye mu ne kon dénk naa leen ngeen di liggéey ba am lu lew na ngeen farlu ci am lu lew fu ngeen toll ndax la ngay jëfandikoo nekk lu lew mooy tax la ngay def ci lu baax doon lu sell ba yàlla nangu ko mu saraa ko ne sàkk lu lew ak topp yàlla la ndax ndegam jaam bi mënta ñàkk a jëfandiku mënta ñàkk a sol mënta ñàkk a fatu te bu dee ku gëm yàlla sañu koo defe ci lu may lu lew kon sàkk lu lew farata la ci bépp jullit mu ne sax moom la ñu war a jiital door caa teg leneen li nga xam ne moom la war a jullit bi mu xam julleeg lu ca aju ak mboolem xeeti jaamu yàlla yi noonu la war a ci moom it mu taxaw temm ci xamu lew te di ko fàggu te mu ne nag lu am ci lu lew it nu ko téye bu baax ndax lu lew kat dafa tumuraanke lool ci sunu jamono jii mooy am ko yombut kon nag luñ ci am rek nu ko téye bu baax bañ koo yàq suñ bi dara santaane yaar nangoo liggéey te bañ a yàq moom ci boppam li ñuy barile barile ak mboolem ñi mu yar ak waa këram li ñuy barile barile daawuñ nangoo yàq daa wax ci way yu ne na ngeen di moytu lépp loo xam ne amal leen njariñ tey gaawantu jëm ci lépp loo xam ne day lu leen di jariñ mu saraa ko saraa bu yaatu daldi ne lépp loo xam ne amul njariñ mën naa doon luy lor mel ne xeetu mooy yàlla mbaa caaxaan goo xam ne moom bu àggul ci bakkaar it amul benn njariñ ne loolu ku bëgg àgg ci yàlla war naa moytu lu mel noonu xeetu mooy ak lépp loo xam ne amul tuyaaba am lay nuru ne wàññiwul dara waaye amul benn njariñ boo koy topp rek boo koy topp rek mu daal la yóbbu ci la lay lor ak gaañ lépp loo xam ne nag wóor na leen lu am njariñ la da nga daal di war a gaaw rek wuti ko te yàlla tax ndegam bëgg nga yàlla gërëm la àggale la ci boppam te mu ne nag boo dee seet yi amul njariñ tamata moytu la ci jiitu mooy wax ju amul tuyaaba jëpp wax joo xam ne du tudd yàlla amul daal tuyaaba rek ci gàttal amul njariñ jekki-jekki di xool rek xool boo xam ne amut lu ko tax di xool amul njariñ jekki-jekki lekk te xiifut amul njariñ dem rek di tukki te amul jenn yit lu ko tax a jóg amul njariñ ci gàttal sax nee na bépp yëngatu boo xam ne amul njariñ rek ñu war koo moytu ndax lépp lu amul njariñ boo cay jàpp rek mu daal la yóbbu ci la lay lor ak gaañ ba mu ne lépp lu am njariñ moom na ngeen gaaw jëm ca yàlla tax nee nag bokk na ci am njariñ lool farlu ci julli juróom ak mboolem xeeti naafile yi moo xam julli la moo xam koor la mbaa leneen lépp daal loo xam ne lu yàlla bëgg la moo xam da koo waral moo xam da koo sopp ndi waralu ko loola lu am njariñ la lu ab taalibe war a gaawe la mooy nag bokk na ci amul njariñ te mën a lor lool bëgg adduna kese nga xam ne bëgg koo defare alaaxira taxut mu ne ku wax ne man de ku bëgg yàlla laa ba noppi nag bëgg àddina te bëgg koo defare àllaaxira taxut mu ne kon la muy woote ci bëgg yàlla demewul noona ndax koo bëgg da ngay bëgg lam bëgg woyofal lam woyofal sib la mu sib te àdduna ni ko addis ba waxe dafa ñàkk solo lool woyof fa yàlla ba nga xam ne bu ñu peese woon àdduna du diise ne laafu nu yoo fa yàlla laafu nu yoo moo gën a diis àdduna fooxee fa yàlla sunu boroom mu ne sax bu fekkoon ne àdduna dafa diise ne laafum yoo fa yàlla boroomam kon yàlla du may ab yéefar ci àdduna benn guuxu ndox rekk bu muy naan loolu nag lu yéeme la boo seetloo yéefar yi daa mel ne ñoo moom àdduna niñ ko jekkoo daa mel ne rek ñoo moom àdduna mu ne nag bu fekkoon ne àdduna diise na ne laafum yoo fa yàlla boroomam du ci may ab yéefar sax lu tolloog guuxum ndox bu muy naan mu ne kon nag ku ne yàlla laa bëgg ba noppi nag di bëgg àdduna te àdduna kese tax maanaam defare ko alaaxira taxut kon day wax rek ni bëgg na yàlla waaye bëggut yàlla mu ne nag bëgg àdduna ngir defare ko alaaxira moom mel na kii gëm yàlla taxaw tamit ci am lu lew ndax mën a topp yàlla boroomam loolu moom ne du ak bëgg àdduna du ak sàkku àdduna bëgg yàlla la wut yàlla la ndax ndax mu ne bu ñu nee nàngam day boo ko bëggee lii moo la koy may bëgg loolee nga xam ne moo lay may la nga bëgg bëgg jëmmi loolee la bëgg jëmmi loolee la mu ne ci bayit yi na ngeen farlu ci sàkku xam-xam ba am njëriñ te bañ a deltu gannaaw farlu it ci jëf ji yiw mooy la ngeen xam ngeen di ko jéem a jëfee te yàlla tax tey moytu nag ak waru xam-xam ak jëf lu ca nekk mënees na caa waru dana ko wax léegi ci bu dee saraa bayit yi kon ne na ngeen sax ci wut xam-xam ba am njariñ saxit ci di jéem a jëfe jëf ji yi di yàlla gërëm te moytoo waru di moytu itam li wax yokkat maanaam dàcc daal di teltu gannaaw dafa saraa bay di ne li ma njëkk a dénkaane muy xam gu am njariñ moom mënta ñàkk ndax ku bëgg a jaamu yàlla faawu nga xam lan mooy jaamu ga lu koy tax a baax ak luy tax yàlla nangu ko gërëm la ca mu ne bu ñu nee jaamu yàlla day yaatu lépp loo xam ne lu yàlla bëgg la rek sant ko jaam bi moo xam lu mu waral la moo xam lu mu sopp la day dugg ci xeetu jaamu yàlla mu ne waaye nag mën nga ne jaamu yàlla ñaari xeet la gu fës gu làqu jaamu yàlla gisees mooy xeeti jëf yi nga xam ne cër yee koy jëf jaamu yàlla gi làqu nag mooy pas-pas yi nga xam ne ci xol lay nekk te pas-pas ya ñu war koo sellal ba nga xam ne jaam ba du dem ba àgg ci li ñuy wax waru maanaam di yëngutu ci biir moo xam ne zahir sa am na njëriñ waaye am na lu ko yàq ca biir kon ne jaamu yàlla yaari xeet la gu fés ak gu làqu gu fés moom mooy jëf yi nga xam ne moom la jaam bi jëf ci ay cëram ga làqu nag mooy pas-pas yi pas ci xol ba ak yéene yu sell ya la mu daaneeli bay wa wal tufaari kool malal moytu leen yokkat ak tayeel ak deltu gannaaw te amoo la nga bëgg mu ne li cëpp nag liy waral yokkat googu ak tayeel googu benn ci yaar yi lay doon lekk lu araam dana ko di waral yenu ci jaamu yàlla loo xam ne itam attunu ko dana ko di waral ndax bu yenoo ci jaamu yàlla loo xam dafa diis bopp ba mu koy jekki-jekki teg fi suuf yenni ko ko du ko xaw a tay kon daal nee na boo bëggee bañ yokkat bañ a taayeel da ngay jéem di lekk lu lew ba noppi itam xeeti jaamu yàlla yi yàlla sopp te waralu ko nga ca yenu la nga mën rek lu mu néew néew te taxoo ko bañ a bàyyi lim ne woon tam bilaxa tiraari jul ak waru mu ne nag xeeti waru yi daa bari bokk na ca xam rek te jëfewoo la nga xam xam-xam daa mel ne garabu kese meññet ma nag mooy jëfe xam-xam ba mu ne kon nag xam rek te booliwu ci jëfe ak waru la di bari la waaroo ka jooy te lu tax nag nga farlu ci jaamu yàlla mel ne buñ dee waare mu daldi gaaw a jooy waaye nag du tax rek mu farlu ci jaamu yàlla loolu ak waru la ñuy waare mbaa mu gis lu xol war a jeexe xolam jeex ca day wane xol bu dund waaye nag gaaw a jooy gaaw a jeex xol te du tax nag nga farlu ci la yàlla bëgg loolu ak waru la mu ne yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ne seytaane moo ciy nax nit ñi moo ciy nax jaami yàlla yi mu ne maa ngi leen dénk ngeen moytu di bañante mbaa ngeen di añaanante mbaa ngeen di xëccante ay daraja mbaa dara ci àdduna da ngeen di jéem a bëggante di jéem a dimbalante ci lépp lu baax ndax mu ne jekki di bañante ak añaanante ak ñàkk dimbalante day nekk ab ñàkk seen diggante ak seen boroom mu ne bépp jaam boo xam ne day añaan ba muy ñàkk dimbalanteeg ñoom war a bëgganteel ak dimbalanteel loola te daal nekk ab ñàkk digganteem ak boroomam ndax mu ne xëccoo ci mbiri àdduna day yàq jëfi alaaxira te ku nekk ci àdduna mel ni ku jëf lu baax ba noppi walbatiku yàq ko bu taxawee alaaxira day mel ni jëfutoon dara moo ko jëfutoon ñooyam kon lépp lu yàq jëf ji yiw rek ni ci xëccoo ci mbiri àdduna ki bëgg yàlla war na koy moytu mu ne sama boroom bii nga xam ne dama di ab soppeem di xaritam muy di yaaleeg man ci mbaaxam ak ngëneelam di ma sottil ci tuyaabaak ay yoon loo xam ne mënis ko takk xam nu mu toll dafa bëgg lool kuy jàng alquraanam ji moo tax na nga leen di digal ngeen di taqoo jàng alquraan tey jàngal quran day tax yàlla musal leen ci noonu yàlla yi ku jàngal quran daal te yàlla tax yàlla mën na koo musal ci noonu yàlla yi mu ne dénk naa leen ngeen jéem a xàmmiku li leen yàlla tànnal ngeen jàpp ca bu baax ak taalibe nag la ko yàlla tànnal du ko xamal boppam sëriñam ba nga xam ne moo koy tërbee di ko teete ci yoonu yàlla mooy xam lay tax mu ma nekk boroomam mu digal ko ko moo tax mu ne kon na ngeen fekk sëriñu tarbiya boo xam ne bu farlu la ngeen ànd ak moom mu mën leen di xamal lay tax ngeen mëneek seen boroom ndax bu ngeen ko defut seytaane mooy daal di ànd ak yéen li ngeen nekk rek mu nekk caag yéen daal di koy yàq mu ne wut ab sëriñ boo xam ne mën na laa teete ci yoonu yàlla mënta ñàkk ku jekki-jekki bëgg a awale boppam ci yoonu yàlla te amul sëriñ bu demee noonu day ruf rek day delloo gàcc rek waaye du am la mu bëggoon mu ne kon dénk naa leen rek ngeen wut sëriñ te taxaw temm ci jëfe ndigalam bu ngeen amee sëriñ daal ngeen jege ko ak ngeen sori ko ñoo ci yemoo da ngeen taxaw temm ci jëfe ndigalam ndax jëfe ndigalul sëriñ bu demee noonu jëfe ndigalul yonant bi la te jëfe ndigalul yonant bi jëfe ndigalul yàlla la ndax yàlla moo waxal boppam ne ku topp yonant bi topp na yàlla mu daanele nag julli ci yonant bi ne yàlla mi def yonante bi mu gën ci mboolem ñi mu yónni yàlla na ko saxoo dool teraanga